ngay bëgg ma dee mel ni borom kër bi ñuy def ñent di dox di taxawaal bañ lay dóor ay liif ci mbedd mi ñaar dërëm sax doo jox seen waa kër ñàkk jom loo yor jox ko xale jigéen yi ci mbedd mi damay génn foofu tontu la tontu la fii laay génn tontu la waaw ndax man sama ñàkk jom gi ma ñàkk jom ba ba bañ bañ tànc maa ngi ay ak i ak i ak i liif def lu baax rek ma ci yóbbu. Samba alaar nga. waaw lu baax boo koy def sa kër nga ko war a njëkkee te njëkkee ko fi. njëkkee woo ma ko fi nga ma ko si ñoom dara. dara nga mënu si ñoom sa diggante ak yàlla mënuma si ñoom dara. guddi gi ne juróomi daanu da koo xeeb. te ñàkk jom ngay tudd. Ah? ah waxal ku mer boo ko da ngay mer xaaral ma la kuy mer nuñ koy xaaral rek xool ko. noonu la feccum corona lii la la. borom kër corona yow. feccum moom waaw monsieur waay siyaar naa la siyaar naa la yaa ngi am jàmm mbaa dëgg la dëgg la xam nga dañ doon sen sensibiliser rek ndax naa gi fu mu nekk nii daa lëmbee dëkk bi. dëgg la kay dëgg la ah jot nga ci xam naa ko mërsim baax na baax na dinaa dajeeg moom léegi léegi léegi incha allah ci kàttanu yàlla dinaa dajeeg moom jërëjëf monsieur le maire jërëjëf jërëjëf yow lu la neex waxal. moom mënoo boo gisee te joxoo <laughs> yow boo gisee ni ma xëyee réew rek nga xam ne sama lépp mat na. dangaa yàgg di xëy di xamadi waaw bu yeboo maa tey maa tey yaa ngay xamadi te tus doo ko yor neex laa la koy joxe feccum corona lii mooy feccum corona teel ma man damay dem wuti monsieur le maire maa ngay dem te ñëw léegi ñaata yoon nga may jox bu la leereen tey boo ñëwee wan doo ko def doo fi dem mii li laa mën a tey de tey boo ma yaakaare wan na doo ko def. bu yeboo bu fi bu fi sa jéem a ñëw. Ah. wan na tey doo ko jaalal tey ceeb doo ko jaalal sa géej tey ngay ñàkk jom. Ah, franc ma lu may mën a li ngay ñàkk jom yëpp. moom dinaa ko wuy ji saa may génn sama kër rek da may ërtal waaye yàlla baax na loolu ngeen xam ne mënoo leen maa ërtal ci leen ah. omo yeeg bële yeeg eau de javel yëpp baax na ci ci ci corona bi dëgg la jàmbaar nga lool waaye baax na. ah Saliou yaa ngi si jàmm mbaa yaa ngi joxante en distance rek nañuy def rang en en distance ndax jàngoro ji tàppalante bi nii wóoru ci waaw baax na. bul jaay mburu nag dañ koy interdit mburu bi bàyyi ko ah xot maane maane maane na def jabel maa ngi xool mbaa yaa ngi xool bopp yi ngay wat. teel xool bopp yi ngay wat feebar bi daa bëri fu mu toll nii waaw nga bi sax moo nekk nii de eh, dëgg la dama fàtte booy sama doom dëggal ma de xam nga ñun moom mag mag moom buur la lu mu def yàlla baal ko mm. waaye nag nii la monsieur le maire nu muy def di jàppale doomu aadama yi lu baax la waaw parce que aide sociale moom daa am njëriñ ndax ñun ñii borom kër ñi daanaka fu mu nekk nii liggéeyatul ndax lépp dara doxut booy xool mbay mi doxatul napp mi doxatul ndax lépp ndax jàngoro ji waaw war nañoo dimbali daal ndax mbir mi gaaw waaw am mbaa jox na lum ñu lum boole ah waaw waaw waaw waaw daw ni li monsieur maire moo ne ma jox la ko mais père am am am waaye yow waaye kii eh, jege de wàccal fii dégg dafa corona yow léegi da ngay gisee film daa corona la wax loin diineel wàccal wàccu ma wàccal wàccu ma luusa la wàcc billaay du ma wàcc doo wàcc du ma wàcc boo wàccu di nga ñax sa jabar yi naa leen laal de na naa dee doo wàcc naa du ma wàcc du ma wàcc wàccal yow wàccu ma bul dee